waxaat yeneeni wax yu rëy ci daraja ak i ngëneel wallahi moo am maxraja ba bis ba dellu mu dat koy berndeel dal néew turam abdul ahad moo barkeel am naa ci yaakaar lool abdul ahad mile kon jooja yaakaar seere say jëfam yile mu am fa ab dal di jàngi alxuraan faf ko fa mokkal man xaroot man na bayaan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 lii tey jii ñu ñëw fii euh, di euh, fàttaliku gane jamono jàmbaari jàmbaari Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu gane woon jamono ca Njaareem ca atum 1914 tey édition deux ñu koy fàttaliku ci ay ñaan di ko fàttaliku nag ci xam-xam waaye ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne daan na ko taxaw rawatina ci dëkk bi réalisation yi nga xam ne def na ko waaye réalisation li muy bëri bëri. fexe ba réaliser ay génération génération daf ko ëpp solo te daf ko ne woon lool. li ma ci gën a fàttaliku te li gën ëppal solo mooy ñàkk caaxaan bu ñu nee ñàkk caaxaan nag dafa lal lu bari muy ci diine muy ci yar muy ci mbokk muy ci liggéey lépp lu mën a doon ci àdduna loo cee lépp looy dugg rek dugg ci ak ñàkk caaxaan mooy da nga dem ba àgg ba mu jeex te loolu nag lu ma neexoon la ci moom ma ñaan ci yàlla ci roy ko ci loolu it. maa ngi tudd maam Demba dëkk Bambey. Euh, di liggéey université Alioune baam bay donc ñëw tey ci màggal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, nga xam te ne doom la ci Xaadim rasol di jàng ci moom lu bëree bëri rek sama waxi démb ak sama waxi tey sama jëfi démb ak sama jëfi tey daanaka man loolu mooy sama credo moom laay def sama repère ci àdduna parce que loolu dafa nekk vay yoo xamante ni lu manqué la ci jamono ji ñu tool nii moment bi nga xamante ni ñu ngi toll ci ay ñu naan ay crise de valeur rek yooyu donc loolu yëpp moom incarné woon na ko jàngaloon na ko askan wi donc nag bu ñu ci ay njàngaleem ay jëfinam ay jëfam rek donc kon duñu ñu réer ñun ndaw ñi. ah ni ma ko dundee dafa metti ni ma ko ndax fi am naa fi ñaar fukki at néeg ba sa sax dafa ñuy tàmpeteeree mën nañu ko joxoon ma di fa yëngu ba ka jotuma fa ma génn ji parang bi di fi yëngu ba ka jotuma fi ma wut sama kër toog ba di fa yëngu. xanaa baax ak yaatu ak mën def lu baax man koo wax dimbali jaam ñi nag ndax lii dimbali jaam ñi moo jumaa ji mu laat ba laataale nu ba bu xewlee nun ñëpp dañuy daw ñëw ku ñëwut doo mën a lekk doo a naan doo mën a nelaw man de sama dem ñuy xool bi may ñëw barke Sëriñ Tuubaa mënu maa dox samay waa kër dañ maa jàpp ci nag oto ba dugal ma ci sama oto waaye bëgg naa lool. maa ngi tudd Ousseynou nekk ci Daara Kamil bi. di ko xamante ni macha allah ci euh, liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax li mu defal Sëriñ Tuubaa ci euh, côté xam-xam mi taxaw na nekk jëmm loo xamante ni tey bu ko defutoon lu bare bare dana xaw a jafe lool ci côté euh, murid yi nga xamante ñi ngi bëgg sëñ bi ci côté xam-xam ak xaside yi fii nekk bi mu koy def dara taxutoon bu def ko dul jàngale ak xam ne sëñ Tuubaa ci domaine xam-xam ci côté xam-xam ndax sëñ Tuubaa ku ne xam na ne léppam xam-xam la woon léppam ci xaside yi la ko def sëñ Abdou Lahad moom li mu fi réalisé gis nga ko bari na li ci njëkk mooy euh, hôpital bu nit ñi fajoo loo xamante ni mënut a ñàkk doomu aadama def na ko ci bu hôpital Ndamatou bii beneen ba tamit mu jëm ci wàllum xam-xam mu indi sécurité li jëm ci wàllum xam-xam université bi nga xamante ne Cheikh Mahamadou Mountakha mi koy continuer Serigne Abdou Lahad Mbacké moo ko yooyu beneen bi li mënut a ñàkk ci doomu aadama muy sécurité mu indi fi gendarmerie ci dëkk bi ma sécurité bu am solo la ñaareel ba tamit mu créé ka gi nga xamante ne lépp lu jëm ci njàngaleem Serigne Touba réalisation am ak ay yoon ak ak ak yaatal dëkk bi ak courant ak ndox fépp foo xamante ni dëkk bi yaatu na tey ba yomb a dem ni télé bi corniche bi nga gis ni tey ci yoon ci premier corniche bi tey ci ay ay ak kiyam la xaalu yi ñu xaalu yoon yi ba mu yaatu lépp ay ay ay ay naalam la woon xam ne suñu am laat tey daanaka yoonu murit ci Touba réalisation yi ëpp ci réalisation moo